بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته noo ngi ànd ak yéen ba tey ci kitaabu tawxid ba tey ñu toll ci buntu wa ala llahi fatawakkalu in kuntum muminin bi iznillahi tabaraka wa taala tey mooy buntu bi ci mujj ci xadisu ibnu abbas bi muy wax xasbuna allah wa nicma alwakil mu ne qaalaha ibrahimu alayhi salaam xiina ulqiya fi nnaar wa qaalaha muhammadun sallallahu alayhi wa sallam xiina qaaluu lah inna annaasa qad jamacuu lakum faxshawhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ابن عباس نينا wax ji sunu boroom wax te mooy xasbuna allah wa ni'mal wakil mooy yàlla nu doy te aji xéewlu la ku farag yàlla ku làqatu ci ginnaaw yàlla ku allié ak yàlla nee na wax ji ibrahima waxoon na ko kañ la ko ibrahima wax jamono jiñ ko yeewee di ko sànni ci biir safara mu ne wa qaalaha muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yonente yàlla muhammad tamit waxoon na wax ji kañ jamono jiñ ko waxee ne nit ñi dajaloo nañ pour fexeel leen na ngeen leen ragal mu ne loolu yokku leen ngëm ñu ne yàlla doy nañu wa qaalu xasbuna allah wa ni'mal wakil nee na xadis bi rawaahu buxaari buxaari moo ko solo mu ne wax jim wax xasbuna allah yàlla doy nañu nee na lim ci namm ay lim ci namm kaafiina yàlla nu doy yàlla nuy aar fala natawakkal illa alayhi du nu wàkkiir lu ci keneen ku dul yàlla borom bi daal di wax ci suratu zumar ay 36 alaysa allahu bi kaafin abda xanaa jaam bi yàlla du ko doy alaysa allah bi kaafin abda waaw yàlla moom xanaa munta doy ab jaam soo jëlee ñetti mbir yi waxu ibrahim waxu yonent bi tafsiru xasbunallah da ngay fekk ab jullit yàlla rek la war a doylu ci yàlla rek la war a làqatu amul benn kàttan amul doole amul mbindéef moo war a nëbbatu ba mu doy la lu raw sa borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu ne wax jooju moo war a rëy ci ab jaam ba yàlla rek jalla jalaaluhu di ko doy alaysa allah bi kaafin abda ndax yàlla warul doy jaam tontu bi mooy lan mbokk yi waa kay waaw bu ñu demee ba yàlla doyatuñu nag est-ce que kon pas-pas yi wér na suñ demee ba yàlla doyatunu bala nuy kontaan takk ay béjjén takk ay xaaw takk ay pitaaw sangoo ay deret def ay sacrifice doog a ne waa ji dafa blende wu doog a ñëw amatul benn sens loolu day wane ne nekkatunu jullit ab jullit moom yàlla war na ko doy mu ne wax ji mu wax ne wa ni'mal wakil ay ni'mal mawkul ilayhi ak ay xéewal ki làqatu ci ginnaaw yàlla mbokk yi koo mën a làqatu ki làqatu ci ginnaaw yàlla moo gën a wóorle moo gën a am assurance moo tax mu ne borom bi nee na ci suratul hajj aaya 78 mu ne wa'tasimu bi hablillahi wa'tasimu billahi huwa mawlaakum fa ni'mal mawla wa ni'man nasir wa'tasimu billahi mooy leen ci yàlla jàpp leen ci yàlla huwa mawlaakum yàlla mooy seen kilifa fa ni'mal mawla wa ni'man nasir allahu akbar ak ay xéewal moom yàlla moomu ku nangu yàlla nekk sa borom ak ay xéewal ku nangu yàlla nepp nekk ku lay dimbali gis nga jullit aaya bi donc war na doy ab jullit wa'tasimu billahi mooy leen ci yàlla jàpp ak mooy dafa am différence jàpp ak mooy du benn de jàpp ak mooy bu gën dëgër mooy ku rëcce woon dix-septième étage di waaj a daanu di ñëw ci yoon bi dajeeg benn buum day jàpp ci buum bi wala dajee ngoy ah day ngoy loolu la yàlla wax yàlla nee na ngoy leen ci man ndeysaan ndax yàlla kenn warul ñëw rek ne nii nii déedéet da nga war a ngoy lu tax ndax soo ngoyul dañ la ciy gindi soo ngoyul soo jàppul bu dëgg mooy mooy matt matt buum bi ak say bëñ téye kook sa ñaari loxo képp kook sa ñaari tànk ba pare laxas ko ci sa yaram xool yi balaa muy deñ noonu lañ war a def yàlla soo ko deful rek mooy li am tey dañ la ciy dindi ci ay secondes yu ndaw nga dem nag te ku dem te àndoog yàlla mooy alkande ñeel na la àdduna ak àllaaxira borom bi nee na huwa mawlaakum li tax ngeen war a jàpp ci moom li tax ngeen war a mooy ci moom mooy seen kilifa mooy seen borom huwa mawlaakum waaw ku yàlla nekk sa borom ndax war ngaa dem di jàpp ci ay ay ay ay deret di jàpp ci ay yax di jàpp ci ay lam di jàpp ci ay petaaw di jàpp ci ay buxaaba di jàpp ci ay bàmmeel di jàpp ci ay nit ñoo xam ne léegi ñu ne la ñu dee nga daw ñëw doo ci mun dara ñu dugal ko ci morgue bi sangu ko sangu ko génn ko rokkos ko ci suuf si ñibbi kooku xam nga ne mënul dara kon yàlla rek mooy dëgg lu dul yàlla neen la yàlla nee na huwa mawlaakum yamu ci loolu mu ne fa ni'mal mawla wa ni'man nasir wal maxsuus niamun képp ku yàlla subhanahu wa taala fexe xéewalal la ba yow yàlla rek moo lay ñor yàlla lay yitteel yàlla jagleel la loolu niamun xéewal gu rëy rëy nga am mu ne qaala ibnul qayim huwa xasbun man tawakkala alayhi képp ku jàpp ci yàlla yàlla lay doy loolu aaya la wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu ku jàpp ci yàlla yàlla doy la gis nga Muusa bi mu jàppee ci yàlla mu tàggoo Madiyan génn di ñibbi Égypte ci xaaja guddi mu ànd ak soxnaam ak ay juróom mu dem ba ci digg àll bi mu réer xamatul fu mu jëm mu seen safara mu ne soxna si resteel fii inni anastu naaran seen naa safara su ma fa demee amaana ma fekk fa nit mu gindi ñu orienté ñu walla su ma fa fekkul nit ma jël ci yarhamukallah ma jël ci matt yi benn gëlit ma ñëw taal fii boog ñu toog jaaru gis nga ku ragal yàlla rek problème boo am yàlla jafale ci bi mu demee ba jege safara si yàlla daal di koy woo ne ko buuri ka man fi naar ki nekk ci war waxtu safara si kooku barkeel na yaa Muusa inni ana allah yow Muusa maay yàlla wala ku réer di wëri ki la gindi di wëri xal boo jaaroo yàlla daal lay gindi kon ku jàpp ci yàlla loolu du ay lépp wallahi ku jàpp ci yàlla yàlla doy la dinañ gis léegi lan moo taxoon Ibrahima alayhi salaam bi ñu ko sànnee ci safara si mu wax wax ji dinañ gis léegi ci kanam li taxoon yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam bi ñu ko ne nit ñi daje nañ mook saxaaba yi ñu daal di ànd wax wax ju rëy jooju kon imaam Ibnul Qayyim nee na képp ku jàpp ci yàlla yàlla dina la doy huwa hasbu man tawakkala alayhi képp ku jàpp ci yàlla yàlla doy la wa kaafi man lajaa ilayhi yàllaay doy képp ku làqatu ci moom ku làqatu ci yàlla yàlla aar la waaw ku làqatu ci yàlla yàlla aar la subhanahu wa ta'ala kon li war mooy jullit yàlla doy ko mu làqatu ci ginnaaw yàlla wa huwa allazi yu'amminu xawfa alxaa'ifi moom yàlla jalla jalaaluhu mooy dalal mooy defal kóolute aji tiit ji soo tiitee ba làqatu ci yàlla rek mu aar la waaye boo tiitee te demoo ci yàlla nga dem ci nit day yokk sa tiitaange waaw ngay tiit dem ci nit nga defa ne am nga sécurité xam nga lu mu lay wax dangay bàyyi ba guddi nga dem ci Carrefour bi nga teg fa ñeenti nen wala mu ne la jinne sàngam wala mu ne la dëmm sàngam waaw day yokk sa tiisaange parce que dafa bëgg a lekk ci yow comme dafa bëgg a lekk ci yow nag su la tiitalul du mën a lekk foog mu wax la loo xamante ne dana la jaral nga dem bàyyi ji li nga li nga dencoon yëpp nga dem indi ji ko jox ko ko pour lan pour lim la wax dañ suñ borom nag mooy ki nga xam ne yu aminu mooy defal kóolute xawfu xaayif tiitaange aji tiit képp ku tiit balaa ko ci yàlla jeex na amatuloo looy ragal wa yu jiirul mustajiir allahu akbar mooy aar ku bëgg a aaru wa yu jiiru al mustajir ki tiit ba jàq ba daal di koy woo rek yàlla wuyu ko jàngeen tukkikat bi tukki woon ak gëléemam sëf koy marchandise ba mu fees jëm dëkkam ñëw ba ci yoon wi daje fa ak benn waay waa ji ne ko foo jëm mu ne ko dëkku sàngam laa jëm dëkk bii ci kanam mu ne ko lu tax ngay jaar nii mu ne fii man fii laay jaar at bu nekk fii laay jaar bés bu nekk fii laay jaar su ma demee mu ne ko fii dafa yéex man de dëkk boobu laa jëm mais man chaque yoon chaque jour su ma fay dem nii laay jaar ndax moo gën a gaaw nañ ànd ñu jaar nii ndax ñu wéttalante comme boo jaaree nii da ngay wéet su ma jaaree nii damay wéet te ñun ñaar ñëpp dëkk ba lañ jëm te yoon bi moo gën a gaaw nan dem nga gis ko waa ji dafa ne waa ji dëgg la wax mu daal di ànd ak moom bàyyi yoon ba mu daan jaar ñu dem dem dem dem dem dem dem dem duubul lu ëpp li waa ji daan jaar fee yëgg ne ko waa yow yow yoon bi nga jaar xam nga ko ah mu ne ko nañ dem rek ñu dem ba ci yàgg waa ji daal di gis ay yaxu gëléem yu dee ay yaxu fas waa ji ne ko yow fi nga ma jaaral nii mu ne ko noppil xanaa gisoo yaxu gëléem yi mu ne gis naa ko kay mu ne bala ma lay bàyyi sa gëléem gi mel noonu mu ne gisoo yaxu nit yi dee yi mu ne waaw kay gis naa ko mu ne bala ma lay bàyyi sa yax yi bokk ci yax yee ndeke daf ko nax jàddloo ko beneen yoon pour rey ko jël alala waaw ñu ne ko danga maa jéggal nga jël alal ji nga ba ma mu ne ko alal ji kay léegi sama alal la nekkatul sa alal gëléem géeg li mu sëf loolu moom kenn waxatu ci mu ne ko su ma la bàyyee nga dem danga may dem boole ji waa dëkk ba moo tax gis nga fii ku ma jàpp duma la baal dama lay rey rek sa gëléem gi ma teg ko fii di lekk ba mu mel ne yax yee bu dee nit ki moom rey naa ko gis nga ci yax yi daal koy sànni ndax ku ma ci baal day dem boole ma waa dëkk bi ñëw jàpp ma fii moo tax du ma baale waa ñu ne kon may ma mu julli ñaar rakk ba après suñu paree nga rey ma mun a ko ah bismillah waaye daal di ja julli ñaar rakk ci ñaar rakk yi muy julli dernier rakk bi mu sujjóotee mu ne yaa Waduud yaa Waduud yaa Waduud yaa dil arshil majid yaa faalun lima yurid nasaluka bi wajhika alladi la yuram wa bi mulkika alladi la yudam wa bi nuurika alladi mala arkana arshika an tugisani yaa mugiisu agisni mu wax baat boobu ñetti yoon yaa mugiisu agisni bi mu sëlmalee rek waaj daal di koy jàpp di ko yeew pour rey ko bi mu koy yeew mu dégg benn baat ne eh bu ko rey mu ne wax kan moo nekk fi di wax ak man naan bu ko rey mu xool ndeyjoor xool càmmoñ gisul kenn mu ne bu bay mu comme yeew na loxo yi mu yeew tànk yi mu déggaat baat bi ne bu gën a jege bu ko rey kan mooy wax fii gisul kan la bi mu tëralee waa ji xaa ci jaasi ji rek mu gis benn ponkal taxaw ci kanamam ne yow du yow la ñuy wax bu ko rey mu siggi rek waa ji bitti ko loxo xam ngeen bitti loxo ah xam nga bitti loxo mooy la mooy fii la ko waa ji dóoree mu dali fële dee waa ji ñëw jël jaas yi ñëw dagg buum yi daan ne waa ji am man yujibul mutatarra iza daa wa yuksifu suu yàlla nee na kan mooy wuyu aji woote ju sonn ju woo boroomam kan moo koy wuyu kudul boroomam mu ne gis nga bi nga ñaanee sa ñaan ki malaaka yi nekk asamaan yëpp dañoo sujjóot ci kanamu yàlla malaaka bu nekk di ñaan yàlla na ko yàlla yi jox ndigal pour mu sauver la mu ne yàlla daan ma koy jox mu ne bi ma yàlla ne yow la dama tiit ndax ku toll na yàlla tànn la ba pare nga échec mu ne dama tiit ba bi ma bi ma yàlla ne yow la rek dama ne waa ji bu ko rey bu ne boobu maa ngi malaul aala bu njëkk ba foofu laa yuuxoo ne bu ko rey mu ne deuxième bu ko rey bi maa ngi septième asamaan troisième bu ko rey bi laa taxaw ci kanam yàlla nee na kan mooy wuyu ku tiit ku jaax ku ku woo boroomam kan moo koy wuyu ku dul boroomam kon yàlla subhanahu wa taala moom day wuyu jiirul mustajiir waaw mooy làq mooy wuyu képp ku sonn bala woo ko képp ku làqatu ci moom moom yàlla moo lay aar mu ne faman tawallahu wastansara bihi wa tawakkala alayhi képp koo xam ne danga far ak yàlla nga sàkku ci moom ndimbal nga wàkkirlu ci moom nga jël yépp wan qataa kulliyatihi ilayhi nga jël lépp delloo ko ko moom jalla jalaaluhu sunu boroom mu ne tawallahu wa xafizahu wa xarasahu wa saanahu ndax mu nekk seen téere lii yëpp mu wax ku ko def yàlla dina far ak yow yàlla dina la wattu yàlla dina la aar yàlla dina la garde allahu akbar kon mbir mi kay soriwul su fekkee amuñu kóolute tey dañoo ragal wala dañoo tiit wala wala wala li muy tekki mooy noo jàppul ci sunu borom rek ndax yàlla du waxantu waaw ku jàpp ci yàlla yàlla rek doy la nga làqatu ci moom borom bi nee na dinaa la aar dinaa la wot dinaa la dimbali dinaa la garde wa man xaafahu wattaqaahu aminahu mimma yaxaaf wa yaxzar képp ku ragal yàlla nga moytu ko moom yàlla aminahu yàlla dina defal kóolute mimma yaxaaf ci lépp loo ragal mbokk yi yonent yi ban gàllaaj lañ doon takk ku xam yonent yi luñ doon takk ci ay gàllaaj yonent yi yan téere lañ doon takk yan lam lañ doon takk ah yan gàllaaj lañ doon takk takkuñ dara ñoom yonent yi amoon nañ ay noon wala amuñu ay noon ñoo ëpp nit ñi ay noon waaye xoolal mosuñu takk mosuñu naan mosuñu sangu seen borom rek te seen borom aar na leen nun ñu bëgg a nekk ay jullit ne yàlla doyoonu duñ laqatu ci yow duñ la woo duñ la ñaan munul nekk képp ku ragal yàlla nga moytu ko aminahu mimma yaxaaf yàlla dina defal kóolute ci lépp loo ragal lépp looy moytu wa yahzar moo tax mu ne wa yajlibu ilayhi ma yaxtaaju ilayhi min almanaafi waxuma yàlla defal la lépp waaye yàlla dina ñoddi xéewal yi indil la ko fekk la fi nga toog xéewal yi daal lay wër suba sunu borom waaw soo ko ragalee dana ñoddi xéewal yi ñu fekki la au lieu que yow nga dem di fekki xéewal yi déedéet mu ne yàlla dina bijji dina ñoddi maa yaxtaaju ilayhi lépp loo aajowoo min al manaafi ci ay njëriñ yàlla dina la ko indil mu fekk la fi nga toog ñëwaat na ci waxu ibrahim bi ibrahima waxoon xasbuna allahu wa ni'mal wakil gis nga wax bi mbokk yi tàmmal leen ko seen làmmiñ wax gënu ko rëy ci islaam xasbunallah wa ni'mal wakil rawatina waa ngi fàttaliku benn boroom xam-xam bu ma toogaloon ñu koy wax Ablaye Wade dafay samp monument boo xam ne monument bi ab xërëm la mooy sut ci biir addit Sénégal li ma seetlu keroog réaction boroom xam-xam boobu balaa muy wax dara dafa ne xasbunallah wa ni'mal wakil wax baat boobu ñetti yoon ba saal bi ne tekk ñu doog a wax ak moom mu ne qaalaha ibrahim alayhi salaam ibrahima waxoon na baat bi xiina ulqiya fi naar jamono jiñ ko yeewee di ko sànni ci safara gaa ya yeew ibrahima qaalu xarriquuhu lakk leen ko wansuru alihatakum dimbali leen seen yàlla yi histoire bi yaa ngeen ko dégg xam ngeen ko ibrahima juddu na fekk dëkk buy bokkaale dëkk buy jaamu xërëm xam na ne lii du yàlla bëgg na leen a wan lii du yàlla mu bàyyi leen ba ñu dem seen jour feet mu ànd ak ñoom ba ñu yegg mu tourné si ñëw fekk dëkk bi yëpp wét mu dugg ci fi ñuy bokkaale fi ñuy jaamoo xërëm yi yàlla yiñ fa yatt samp leen fa mu ñëw jël jaaseem gor yàlla yu ndaw yëpp bu ñu tëdd mu jël jaas ji dénk wékkal ko yàlla jumaa ji waa dëkk bi bi ñibbisee ñu gis yàlla yu ndaw yëpp daanu ñu gis yàlla ju mag gi donc mu ngi taxaw wékk jaas ñu ne waaw man faala haza bi alihatina kan moo def ni sunu yàlla yi ma nga yàlla ju ñuy daaneel maanaam Ibrahima dafa bëgg keroog xel yi xel yi xalaat ilaa dafa ibrahima dafa bëgg xol yi comprendre ibrahima dafa bëgg wax leen ne gëmu leen yàlla lii du yàlla mais man faala haza bi alihati kan moo def ni sunu yàlla yi rek ci biir mbooloo bi am ñu ne sami'na fatan yazkuruhum yuqaalu lahu ibrahima dégg nañ benn jeune ci koñ bi la nekk moom ku contre yàlla yi la ku contre mag ñi la waaw nga benn jeune bu dëkk ci koñ bi mag ñi rek la compte loolu la paa yi di wax tey wax contre mag ñi quoi loo wax rek mu compte loolu la waa dëkk ba wax keroog dégg nañ benn jeune bu dëkk ci koñ bi mu ngi tudd Ibrahim suñu yàlla yi rek la bañ ñu ne dem leen ngeen indi ko ñu dem foton ko daal di koy indi yenu ko indi ko sànni ko ci kanamu nit ñi ñu ne ko biñ ko gisee ñuy ñëw gaa ñu ne unsuru alihatakum dimbali leen seen yàlla yi dim yàlla bu ñuy dimbali dimbali leen seen yàlla yi ñu ne ko ibrahima man faala hada bi alihatina kan moo def ni suñu yàlla yi mu ne leen ya yéen da ngeen ma yàpp bal faalahu kabiruhum hada yéen ngeen gis xale yi ndaw yëpp daanu ponkal mi taxaw yor jaasi ji ngeen ma koy laaj du ngeen ko laaj moom mi taxaw yor jaasi ji xel loolu la nangu wala ñëpp a ngi daanu yow kenn yaa taxaw te yow mi taxaw yaa ngi wékkoo jaasi mu ne laaj leen kii gaa ñi ne teg ba caag ñu ne ko yow yaa ko tey xam nga ne kii du wax yow mu yaa ko tey yow xam nga rek ñuy sabote xam nga kii du buuse du wax mu ne leen uffin lakum yéen yéen ay con yéen ay dof da ngeen di jaamu loo xam ne du dégg du gis su lor di- su ko lor dikkalee du mun défendre boppam yéen yéen yéen yéen yéen ay dof ngeen rek gaa yi ne teg ñu ne ah am na ci gis nga chaque jour mbooloo ñëpp duñ nekk ay dof am na ci ñuy yeewu ñooñu ngay gis ñuy rëcc ndax dañu dem ba jaag ñoo xam ne lii ñu ñuy wax du dëgg ñooñu mais am na mbooloo ñoo xam ne kon nag ñëpp ay dof lañ du ñu mës a gindeeku dañuy dof ba dee dem safara mooy comme dofu Sénégal yi ngay gis nii di jox seen bopp ñoo xam ne xamuñu dara ah di jébbalu ci jigéen jigéen nga naan mooy sa sëriñ dof yu bon yi ngeen di nga xam ne ñëpp safara lañ nar a dem comme ñooñu rek ñoo ñoo ñoo daje woon ak yonent yàlla Ibrahima ñu ne teg am ñu ne ah mais xam nga mbooloo dafa am ñoo xam ne ñu ëpp chaque jour mbooloo soo gisee ñuy réer dafa am ay dof yoo xam ne dañuy jege kilifa gi ñooñ ñoo koy utal ay taalibe ñooñ ñooy réeral nit ñi ñooñu ñooy tax gaa yi gëm sëñ bi loolu moo nekkoon ci yonent yàlla Ibrahima bi gaa yi ne teg xam ne Ibrahima wax na dëgg am ñu commencé bëgg a rocceeku rek yeneen dof yi ne déedéet non lii du jaadu unsuru alihatakum nañu dimbali suñu yàlla yi gaa yu yuuxu ñu ne harriquhu harriquhu lakk leen ko mbooloo mi commencé yuuxu ñu dem uti ay mat gis nga Ibrahima fi mu leen doon yóbbu pour seen xel yi xalaat ñu ne tekk commencé xalaat rek ñu xam ne dof yooyu xam ne bu ñu bàyyee nit ñi xalaat luy xew dañuy bàyyi yàlla yi ñu gis nga ñu tere nit ñi loo ñu tere ñu tere nit ñi xalaat yuuxuloo leen dimbali leen yàlla yi lakk leen ko rek dem leen ngeen uti ay mat ñu dem uti mat boroom xam-xam yi nee nañ am na ndaw soo xam ne dafa jaay doomam sax ndax jënd matt pour ñu lakk Ibrahima nee nañ keroog taal nañ diggante asamaan si ak suuf si ci ay matt tàngaay bi bi mu tàngee picc bu naawoon jaar diggante asamaan si tàngaay bi ak suuf si picc yooyu dañoo daanu ndax tàngaay bi ni mu tàngee safara si ni mu bare ndeysaan in kuntum faa'iliin yàlla neen bañ jàppee Ibrahima bu dugal ko ci safara si qul naa yaa naar kuni bardan wa salaaman ala ibrahim wa araadu bihi kaydan fa jaalnaahum al axsarin suratul anbiya aye 68 aye 70 yàlla nee na bañ ko jëlee bu dugal ko ci safara si biñ koy dugal biñ ko dugalee ci biñ ko bëggee dugal ci safara si mënuñu ko dugal ndax safara si dafa tàng kenn mënu ko jege indi ko nii sànni ko kon ñoom ñëppay lakk iblis moo ñëw ne leen da ngeen di ut benn lasper bu ngand ngeen indi ko ba nii ngeen dugal ko ci taawi ko bu ngeen ko taawee ba mu taawee ko bu ngeen bàyyee rek lasper bi dina ko sànni ci safara si ñu def noonu uti ngandu mbaq samp ko ba mu dëgër këj ñu daal di koy taawi këcc ko ba mu sori ñu lancé ko bi ñu ko sànnee rek mu dugg ci safara si waaye bi ñu ko dugalee bi ñuy bàyyi élastique yi muy dem rek mu ne xasbunallahu wa ni'mal wakil moo tax bi muy daanu ci safara si dafa fekk jibril taxaw jibril moo ko capté teg ko ci suuf ndeysaan yàlla wane màggaayam encore sunu borom mënoon na wax géej gi demal nga fay safara si wala wala yàlla mënoon na wax asamaan acca towal ndax safara si fay wala yàlla mënoon na ballal suuf si sax comme ni mu defoon ci nu waaye dana yàlla dana safara si bu lakk Ibrahima de nekkal jàmm seddal nekk jàmm même baatu kuuni bardan wa salaaman borom xam-xam yi dañ ciy wax ñu ne bu ko ne woon bardan na sedd safara si seddal kon Ibrahima day dee sedd bi dafay rey waaye yàlla dana ko safara si seddal nekk jàmm ci Ibrahima safara si tàkk ba jeex ñu gis Ibrahima toog di naan ataaya la ilaha illallah ndeysaan jommi nañ keroog de am na loo xam du mbiru nit moo tax xasbunallah wa ni'mal wakil day génne jullit ci bépp jafe-jafe day génne nit ku ko tàmmal làmmiñam yàlla ne wa araadu bihi kaydan namoon nañ ci moom ay pexe fa jaalnaahumul axsarin ma def leen ñoom ñooy ñi perte ndax ñoom lañu gañe mu ne wax ji muhammad alayhi salaatu wasalaam waxoon na ko kañ keroog biñ leen ne inna naasa qad jama'u lakum nit ñi dajaloo nañ faxsawhum tiit leen fa zaadahum imaanan nee na keroog lii def leen a yokk ngëm wa qaalu xasbuna allahu wa ni'mal wakil mu ne wa zalika baada muntasafi qurays wal ahzab keroog ba ñu gañee waa qurays ak mbooloo ma ñu àndaloon ñi ñu defoon seen coalisation bu mag boobu nga xam ne mu ngi ci alquran sax yàlla tuddee ko ab saar nee na Aba Sufyaan ak ñi àndoon ak moom daje nañ bëgg a def beneen alkarra benn tuur pour faagaagal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak sahaaba yi mu ne fa xaraja nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi sabiina rakiban yonent bi génn ànd ak juróom-ñaar fukk ñu war hatta intaha ila hamra il asad ba mu dem ci benn place bu tudd hamra il asad mu kampe foofu fa alqa allahu ruba fi qalbi abu sufyan gis nga yàlla daa di sànni daa di dugal tiitaangeem ci xolu abu sufyan fa rajaa ila makka bi man maahu mu daa di dellu makka ànd ak ñamu àndaloon lan moo ko delloo xasbuna allah wa ni'mal wakil dafa def mbooloom ne maa ngi ñëw yonent bi génn di ko xaari mu dégg yonent bi génn na mu tiit te moo ne woon maa ngi ñëw tey ngeen dee ñamu ne woon maa ngi ñëw tey ngeen dee ñooñu génn taxaw di ko xaar mu ne ah xaaral ma toogul lay ñii nga leen tey ngeen dee ñu taxaw ñoom ñëpp di ma xaar ñi am na lu ñu ngànnaayoo wóorul xaaral ma toog ndeysaan yàlla daal di sànni tiitaangeem ci xolu Abu Sufyaan ak ñi mu àndaloon ñu daal di toog mu ne wa marra bihi rakbun min abdu qays fa qaalu ayna turid qaalu nuridu almadina qaala fa hal antum muballiguna muhammadan ala risalati qaalu naam qaala fa ida waafaytumuhu fa axbiru anna qad ajmana alsayra ilayhi wa ila ashaabihi gis nga ni mu yónnee nag mbooloo mi pour tiital sahaaba yi mooy benn caravane moo ko romb boo xam ne abdu qays moo ko jiitu moo ko jiite mu ne leen fu ngeen jëm ñu ne ko Medina mu ne bu ngeen demee ngeen ne muhammad na ngeen ko ko jottali mu ballixuna muhammadan andris waaw yéen xanaa muhammad moo leen yónni ñu ne waaw da ngeen koy jottalil mes mission bi ñu ne waaw ñu ne bu ngeen demee ngeen ne ko ñu ngi dajale mbooloo mi ñoo ngi ñëw ci kawam buñ ñëwee danañ ko faagaagal jeexal ko ci kaw suuf moo ñi mu àndal mu ngoog yenent bi romb xamra il asad bi mu ñëwee ba foofu ñu wax ko li abu sufyaan wax fa qaala xasbuna allahu wa ni'mal wakil mu ne yàllaa nu doy yàlla mooy doy képp ku féete ak moom mbokk yi wa fi xaatayni alqissatayni fadlu haadihi alkalimat alazima histoire bi ñu jàng ñaari qissa yi mooy qissa ibrahim ak qissa yonent yàlla muhammad daf ñuy won ne baat yi kat di ko wax am na ngëneel yu rëy rëy rëy wa annaha qawlul xalilayni alayhima assalaam ñaari kàddu yi mooy waxu ñaari xaritu yàlla yi yàlla dafa am ñaari xarit ba ñu tiitee ba làqatu ci moom ba wax wax ji moom yàlla daf leen aar xaritu yàlla yi kan ak kan la ibrahim ak muhammad wax ji leen yàlla aar ban wax la xasbuna allah wa ni'mal wakil ñoo na ci xadis ida wuqitum fi l amri l azim fa qulu xasbuna allah wa ni'mal wakil mbokk yi yonent bi nee na su ngeen dajatee ak mbir mu jafe su leen jafe-jafe àdduna songatee lu ngeen mën a gis ci ay problème wax leen xasbuna allah wa ni'mal wakil yàlla daal leen ci musal dars bi ñu doon jàng danañ ci jëlee juróom benn mbir bi ci njëkk mooy atawakkalu min al faraid wàkkil lu ci yàlla farata la farata nag bu ko nit bàyyee safara la jëm farata mooy loo xam da nga ko war a def fal fos comme julli comme woor comme jàpp loolu farata la feeg amoo ngant lu la ko teree def nga koy def te julli amoo ngant bu la ko teree def farata la bu tegu sa kaw naka noonu tawakkul alallah minal faraidi dafa bokk ci farata yi da nga war a wàkkiir lu jël sa bopp jox yàlla tekki téere yi tekki lam yi tekki galaaj yi tekki pitaaw yi bàyyi sangu ci xàmbu yi xërëm yi bàyyi raay bàmmeel yeeg di tibb ci suuf see xeer yi loolu julli daf ko war a bàyyi ñaareel mooy annahu min surutul iman dafa bokk ci sart iman sart yi tax nga gëm yàlla nga jox nga làqatu ci yàlla def cee bokk soo joxul sa bopp yàlla amagoo gëmagoo yàlla su la yàlla rek rek rek doyul gëmagoo ko oui waaw loolu sax mu dëgg-dëgg loola xel nangu yàlla kese doyu la kon gëmagoo yàlla kañ nga la la yàlla di doy kañ ngay gëm su la yàlla rek doyee loolu tamit na leer ci suñu bopp loolu mooy ñaareel bu ñuy jëlee ci dars bi ñetteel mooy aaya bi mu tafsir muy aaya anfal gis ngeen ko ñeenteel mooy aaya tafsiru aayatuha fi axiriha mooy aaya bu mujj bi bi ñu doon wax léegi léegi xaamis bi mooy aayatu talaaq wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu mooy aaya bi nekk ci suratu talaaq ku jàpp ci yàlla yàlla doy la juróom-benneel mooy azamu sa'ni hazihi alkalima gis ngeen baat bii ma doon wax nii baat bu rëy la kenn ci ñun na ko essayé di ko wax fu mu toll hasbunallah wa ni'mal wakil tey jii talaata ba talaata du dellusiwaat ñu xool ay mbiram mu ne mbiram dafa rëy annaha qawlu ibrahim mooy wax ibrahim wa muhammad fi sadaidi muhammad ak ibrahim saa yu ñu amoon jafe-jafe fii la ñuy làqatu ci yàlla lu ñuy wax hasbunallah wa ni'mal wakil kon ngànnaay baa ngoog saa yoo amee jafe-jafe saa yoo amee tartar saa yoo feebaree saa yoo saa yoo saa yoo gàllaaj gaa ngi nii hasbunallah wa ni'mal wakil yal na yàlla doy yal na yàlla aar lii mooy darsu tey assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh